dugg carrément ci loolu ndax 2020 la ñu déggoon histoire bi éclaté wu euh, ay euh, famille yoo xam ne dañu xëy ne leen ñu génn euh, fii ci Wakaam tey boo est-ce que mën nga ñu dellu siwaat ci lu gën a leer situation terme sud boobu lan moo xewoon exactement waaw terme sud euh, comme son nom l'indique dafa nekk benn pàccu Wakaam terrain état bu nekk euh, disons euh, ci aux abords de piste atterrissage yu avion yi euh, ki boobu terrain boobu en fait ay américains vers les années 1936 ñoom bi ñuy def seen expédition fii à au Sénégal ñëwoon dans le cadre de, disons de seen installation Euh, ci deuxième guerre mondiale bi ñoo fi ñëwoon ñu jagleen leen jagleel leen terrain boobu ñu tabax fi ay dëkkuwaay euh, loger ci seeni seeni militaire alors ba ñu defee la ñuy def ba retiré wu ba ñu bàyyi ko ak tubaab yi les français français yi yor ko ba après les indépendances à l'aube des indépendances français yi ñoom aussi Euh, ba ñuy dem ñu bàyyee ko euh, ñu delloo ko état du Sénégal état du Sénégal jox ko armée sénégalaise en bail euh, bail en ce sens que kër yi ay kër la woon armée sénégalaise soxla woon ko pour dëkkal ay cadre ay militaire am à proximité des cantonnements militaires nga xam ne ñoom ñëpp pratiquement ñu ngi leen logé woon à Ouakam alors c'est dans ce cadre Euh, boo ñëwaan nekk euh, cadre militaire euh, le plus souvent marié dañ lay soxla à proximité du cantonnement pour optimiser mission yi nga war a def pour rendre service moo waraloon boo ñëwee ñu jox la kër bu ñu la joxee kër en fait ce n'est pas ce n'était gratuit dañ lay jox kër ngay fay dañ lay prélever systématiquement sa indemnité représentative de logement mooy indemnité de logement bii la état du Sénégal di fay au niveau du ministère des finances alors ci anam yooyu la ñu dëkkee woon terme sud bi ñu demee ba 1994 armée sénégalaise dafa jugé que moom euh, kër yi demee woon na noo xam ne euh, mënatul woon continuer di ko gérer alors dafa préféré woon jël kër yi rompre bàyyi bi amoon digganteem ak état du Sénégal delloo ko kër yi delloo ko terrain bi maanaam état du Sénégal jëlaat terrain bi euh, ce qui fait que terrain bi dafa dellusi si ci patrimoine euh, privé de l'État ñun nag ñu continuer dëkk foofu alors di fay suñuy indemnité de logement di ko fay di ko fay di ko fay ba en l'an 2000 première alternance ba mu ñëwee euh, bi président Abdoulaye Wade euh, di def état des lieux ñu jugé nécessaire ñu déclasser euh, terme sud morcelé ko joxe ko ay agents de l'État ci seen bopp ñoom ñoo ñëw fekk ñu ñu toog ñun borom kër yi ñu xamal ñu ne ñu comme yéen yéen a ngi fi ñun kat site bi ñu ngi koy waaje ñu ngi ko morcelé nañ ko sax la ñu wax ñu ngi koy waaje joxe yéen nag euh, yàlla dafa def comme yéen la fi mbir mi fekk euh, seen droit de préemption moo tax balaa kenn yéen d'abord et pour loolu euh, da ngeen di def seen i correspondance xamal ñu ne yéen soxla ngeen kër yi ci la ñu jóg def correspondance yooyu adressé ko état à différents niveau premier ministre yi fi nekkoon les différents premiers ministres Moustapha Niass Mame Madior booy adressé ko au ministre des forces armées ba au euh, disons au président de la république président de la république nag bi mu ko jotee moom ci boppam mu joxe instruction pour que ñu diligenter dossier boobu alors bi loolu amee ci la ñu def ñun suñu demande de régularisation par voie de bail adressée au ministère au ministre des finances léegi nag euh, courrier boobu ba mu demee euh, certainement ñoom ñu au lieu en retour ñu delloo ñu ko ñun ñu ko defoon ñu jaarale ko à l'état-major général des armées nga xam ne ñooy suñuy supérieur hiérarchique ñun daal toog nañu ba en 2008 alors euh, ñu woo ñu somme ñun ne ñu daal ñun dañu war a génn kër yi parce kër yi disons euh, terrain bi euh, kër yi dañ ko euh, terrain bi dañ ko morcelé te comico lañ ko jaay alors l'un dans l'autre ñuy def suñuy investigation ba ñu xamal ñu ne yéen kat seen dossier traité woon nañ ko ba vraiment seen kër yi en principe war nañ leen ko jox ñu wëlbatiku nag jàkkaarloo ak ñi ñu somme woon pour ñu génn ñu ne leen yéen Euh, li ngeen ñu indil ñun gëmuñu ko jubuwuñu apparemment c'est illégal ci anam yooyu le contentieux bi démarré alors ñu jaay ñu doole nag dans un premier temps euh, intimidation ensuite traîné ñu devant la brigade prévôtale de la gendarmerie ñu dem def ay audition ku nekk wax li nga xalaat loolu sottiwul ñu traîné ñu en justice en 2009 bu ñu demee dans un premier temps ñu dugg euh, disons euh, au tribunal des référés ba ñu demee ñoom ñu indi seen i këyit wane ko ñun ñu indi suñuy argument teg ko le juge des référés n'était pas convaincu de ñoom la ñu wax juge bi déclaré wu incompétent par la suite ñun en tant que collectif coopérative ñu wëlbatiku saisir le tribunal de première instance bañ ko saisiré euh, demander la rupture de tout partenariat entre État du Sénégal ak Comico parce que jaarul yoon jaarul yoon pourquoi parce que un Comico amul droit di ñu deuxième chose Comico ci boppam n'était même plus éligible au niveau du titre foncier parce que titre foncier bu ñu la ci joxee benn yoon amatoo ci droit te Comico moom ci boppam entité la représenté par son euh, sa personne morale muy le président du conseil d'administration jox nañ ko ci benn yoon c'est la première réalisation de Wakam de de la Comico à Wakam moo nekk noonu sur le titre foncier 44 17 sur DG alors bi loolu amee ñu dem débat contradictoire yi dem ba aboutir à disons la décision du juge bu wax ne état du Sénégal ak euh, Comico bépp partenariat bu doxoon seen diggante na dakk alors loolu mooy premier euh, volet ñu dellu état du Sénégal daan nañ ko Comico daan nañ ko état du Sénégal moom moom terrain en principe moom moo waroon interjeter appel parce que Comico client la mais Comico ci boppam moo wëlbatiku comme moom dans un premier temps bi mu ñëwee dafa ne woon Euh, morcellement bi état bi defoon euh, dañ ko ci jaayoon des parcelle de un à cent quarante maanaam cent quarante parcelles de cent cinquante mètres carrés cette fois-ci mu dellu tribunal ne leen tribunal état du Sénégal daf ko jaay trois hectares cent de terrain nu alors ba mu indee loolu dugal dugal ko en appel ñun ñu ngi dëkk ci ay bâtiment suñu yoon nekkul ci ay terrain nu duñ fa nekk di di xëccoo di tergiverser ci ay terrain yi loolu normalement digganteem ak état du Sénégal la woon état du Sénégal la waroon jàkkaar lool laaj ko lu tax waaw xam nga komiko euh, armée waaw moo bon armée armée parce que xam nga bi affaire bi amee euh, ñëpp gis nañu la riposte donc man en tant que coordonnateur à travers tous les médias c'était vraiment regrettable euh, mbir mi bu boo waxee état mbaa nga wax armée euh, c'est des entités républicaines am na ci loo xam ne duñ ko caaxaane ñoom ci seen bopp bu amee c'est parce que c'est c'est une frange bien déterminée ay ay nit la yu constitué wu euh, soxla benn mbir jaarale ko foo xam ne waruñu fa jaar c'est tout parce que ñoom comico ba mu demandé trois hectares cent yooyu yóbbu ko tribunal fexe ba tribunal jox ko ko mais boo demandé nga ne da nga am trois hectares de terrain nii te ñun ba ñu ba ñu ko indilee on a fait l'expertise jël nañu ñun commettre nañ benn géomètre il n'y avait aucun terrain cumulé de trois hectares cent existant ci ci ci les quinze hectares du terme sud donc da nga mën a jël fii tuuti terrain nu rek dem feneen jël fa tuuti terrain nu donc ñoom noonu lañ ko defee alors ñun suñu yoon nekku ci léegi nag ba ñu demee ba lijjanti ba état bi jox leen trois hectares euh, soi-disant pour tribunal a validé trois hectares cent de terrain nu papier boobu lañ ñu indil def seen benn euh, tappale jaar ci à travers les médias wone ne ñoom jox nañ leen fañ leen jox foofu la dëkk léegi ñun dañu war a génn alors ci la ñu dem euh, servir ñu sommation de déguerpissement man nag en tant que coordonnateur hmm, en fait euh, porteur de voix de du collectif euh, alerte woon naa ñëpp alerte woon naa kii de droit présidence de la république les services des impôts de domaines la gendarmerie le le commandement de la gendarmerie tout le monde le gouverneur ñoom ñëpp alerté woon nañ le ministre de l'intérieur alerté woon nañ leen ne woon nañ leen lii njombe la goo xam ne su ngeen ko bàyyee mu dem gàcce lay doon ci yéen parce que jaarul yoon anam yi waroon nañ wane nañ ko alors ci euh, anam yooyu la ñu fekk le au petit matin du mercredi euh, 30 septembre 2020 ñëw avec une horde de gendarmes plus de 200 plus de 15 euh, véhicules ñëw dal ci suñuy famille indi ay grenades lacrymogènes di ko dóor ci suñuy doom di ko dóor ci suñuy famille jaxase foofu yëpp en plein hivernage en pleine période de Covid. même même lu ma lu ma jaaxal moom mooy. Euh, déggoon naa ñu ne indemniser nañ leen euh, famille yi nga xamante ni génn nañ ku nekk jox nañ la dix millions dalal naa fii ay jigéen yi nga xamante ni ñoom ñooy soxna yi ñi xamante ni ñoom lañu génne mais loolu lañ ma waxoon euh, loolu la moo ci la moo ci am la moo ci amul. waaw mais indemnisation dañ koy formaliser. il n'y a jamais eu d'indemnisation. wax jox nañ leen. parce que buy indemniser bu état di indemniser xanaa à la dina la jox kayit yu ko firndeel wala di ngeen ci waxtaan wala moom dina définir loolu yéen jotu leen kayit jotu leen benn firnde ce qui s'est passé c'est que ba déguerpissement bi amee euh, on a été exfiltré ñun du terme sud par le maire Barthélémy Dias mu dem loge ñu fële au niveau du centre de Liberté 4 centre socio-culturel de Liberté 4 Euh, pour un temps bien déterminé parce que centre bi dafa waroon ubbi on était en septembre octobre centre bi dafa waroon ubbi donc ñun dans un premier temps dañu euh, joxe un ultimatum on avait demandé à être reçu par le président de la République en urgence amatuñu woon beneen interlocuteur Le président en personne avait, avait chargé le, son, le secrétaire général de la présidence, en l'occurrence l'ancien Premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne maa ngi koy ñaanal euh, vraiment mu fa mu tëdd gënal ko fi mu jóge moom moo ñu woo à la présidence dans un premier temps sax nous étions réticents parce que bëgguñu woon rencontrer keneen ku dul président de la République mais sous son insistance soi-disant que président de la république dafa nekk en déplacement et l'urgence est telle que moom il faut mu recevoir ñu rendre compte président de la république ci lañ ci lañ jokk man ma jël délégation conduire ko à la présidence dem mu rencontrer ko moom ak benn conseiller spécial bi ñu toogee ci la ñu xamal nañu le président de la république a été extrêmement sensible à la situation te daf ko bett parce que prévoir ko woon Euh, non seulement prévoir ko woon mais euh, les choses étaient telles que dafa amoon euh, en amont un règlement à l'amiable initié par toutes les parties donc même le le le, le chef d'état-major général des armées sortant qui avait donné son accord pour que impôts et domaines comico ak les la, la, la les ressortissants du terme sud ñu déggoo ci kàddu ku nekk fi nga dëkk nga ñu ñu ñu defal la say limite tout le reste non non c'était euh... Birame Diop général voilà non avant Birame Diop c'était Cheikh Gueye général Cheikh Gueye alors pour que loolu ñu teg ko jàmm na ñooy alors léegi ci no anam yooyu la ñu bun Abdallah Dionne euh, woo nañu man kat euh, président nee na vraiment affaire bi metti na ko léegi nag comme génnee nañ leen génnee bu bu bu bu doy waar bu ci anam yii mu toll yàq nañu seen i bagage euh, seen njaboot tas nañu nawet lañ ne Covid lañ ne dans l'urgence man état du Sénégal dinaañ dinañ génnee dix millions jox famille bu nekk pour que nga mën fa jëlee sa njaboot. ce n'était pas na et il l'avait très bien précisé il non c'était un secours d'urgence comme tout le monde le faisait parce que ñun en ce moment on avait même initié un téléthon ah, okay. pour que téléthon bi daw pour que ñu jéem a am fonds pour que hmm. famille yi mun a mun a mun a mën a xippi hmm. mais téléthon bi dañ ko arrêté dañ ko bañ donc loolu la ñu indil hmm. te bi ñu ko indilee aussi euh, ils nous ont fait comprendre parce que nous étions soixante-dix-neuf famille les soixante-trois étaient à la retraite mmh. les seize étaient encore en activité soit disant que dans quelque temps peut-être su su peu am na ci ñeneen ñu war a dem retraite hmm. mu ne ñu ne les seize familles là comme ñoom dañu nekk encore en activité seen hiérarchie moo leen di euh, gérer ok mais dinañ leen jox quand même maa ngi ñëw hmm. ci ci dans un premier temps ba mu ñu waxee loolu hmm. nous avons refusé foofu la ñu bàyyi loolu nous sommes sortis du du palais hein? du palais bi ñu ñëwee ñu waxtaan avec Euh, nos partenaires ñu ne ñu euh, un tien vaut mieux vaut mieux que euh, demain tu l'auras dem leen ngeen jëli loolu li ci des ñu xeex ko pour ñu jox ñeneen ci la ñu dem parce que man dans ci anam yooyu je m'étais dit même que bu ñu globaliser somme boobu nous allions diviser ça à part égale pour les soixante dix neuf familles leneen yi bu ñëwee aussi. ñu def noonu mais malheureusement ñoom dañu def. de sorte que ku nekk ñu bind sa tur defal la chèque mhm. noonu la mbir mi demee alors bi ñu fa jógee alors euh, ñibbisi quelques quinze jours après le centre devait ouvrir les familles se sont dispersées les mhm. familles se sont disloquées mhm. alors euh, ni ñu dëkkee woon muy communauté en fait c'est une communauté qui a été euh, dispersée de façon extrêmement brutale lan lay indi traumatisme. d'accord avant ñu yegg ci traumatisme.